jërë ngeen fu mbokk yi bàyyi xel xibaar yi marax yi fii ci M7 TV tey nag ponk yi ci gën a fës bokk na ci déclaration politique général bi nga xamante ni njiital gouvernement bi di Amadou Ba amal na ko fële ca pencum ndawi réew mi ndëgën yi tey jii ak la fa soqeekoo ba tey ci penc moomu la ñuy des ak kàllaama gi nga xamante ni taskatu xibaar yi yëkkati nañ ko di yuuxu naan nañu bàyyi seen naataango bi di Pape Alé Niang ba yenn ci ay député sax feelu leen ba di leen tàccu. ci ñu waxaat ci leneen jëmale ci ñàkku kaaraange gi ñu nemmeeku ak jafe-jafe yi am fële ca marché wu mbuur ba ba ñenn ci ay doomi aadama ñàkk ci seen bakkan am na kenn ab sociologue Abdou Khadre Sanogo andi na ci ay kàddu ci micro Cheikh Dia bi loolu moo gënoon a fës ci ponk yi bu ngeen taaxirloo tuuti ñu yaatal. ci penc moomu la ñuy des ba tey njiital gouvernement bi di Amadou Ba def na ab déclaration politique générale am tey ci suba fële ca pencum ndawi réew mi mu nekk gouvernement boo xam ni dañu ko tekk ngir xeex ak janoo ak jafe-jafe yi nekk ci secteur yu bari ci kanamu député yi la ko amele lan la secteur privé mën a indil ak lan la ñu ciy xaar ñu déglu tontu bi nga xamante ni Youssoufa Diop def na ko di président adjoint bu confédération nationale des employeurs du Sénégal ci micro wu Basile Mané kii di premier ministre bi nag Amadou Ba doom jàkkaarloog député yi fële sa assemblée nationale nag ni ki tey pour fësal ban yoon la war a mën a jaar pour amal liggéey bi ko président de la république sant waaye nag ñi nga xam ne mooy la confédération nationale des employeurs du Sénégal ñu leen wooye CANEX nag ñoom nag ñu ngi xam ne nag kii di Amadou Ba moom ak gouvernement am dañoo war a lëkkaloo ñoom pour xool ñu gën a ñoŋalee secteur privé bi liñ si jëkk mooy euh, vraiment ñun secteur privé ñun CNES euh, ñoo ngi réaffirmer vraiment suñu disponibilité maanaam pare nañ comme niñ ko toujours defee ah pour liggéey ak état parce que je pense que secteur privé ak euh, secteur public duñu ñu war a lëkkaloo jàppante loxo pour mun a justement atteindre euh, donc objectif yi ñu fixé wu euh, mais nag waxtaan boobu ak diisoo boobu il faut que tam ñu organiser ko. waa CANEX nag ñaanuñu dara lu dul kii ñi nga xam ne mooy gouvernement bi dox leen cër gi nga xam ne dañu mën a gën a may doole secteur privé bi gën a mën a jëm kanam ndax gouvernement de combat la ñu wax gouvernement de combat la Amadou Ba tuddee bi nga xam ne président de la République dénk euh, lu ñu mën a wax tam mooy euh, di invité waat di ñaax état bi aussi euh, pour bu amaat pour bu am plus de considération à l'endroit de son secteur privé parce que comme ni ma ko waxee bi ñu tàmm di wax naan le secteur privé. Euh, est le moteur du loolu warul nekk benn slogan bu ñuy wax nii rek mais dafa war loo xam ne dafa war a nekk loo xam ne duñ ko gum duñ ko gëm te di ko jëfee. ñi nga xam ne mooy la confédération nationale nag des employeurs bu Sénégal nag ñoom benn bëgg-bëgg rek lañu am pour xool nu ñuy xeexee njëg yi di yokkute te wàññeeku mooy may doole agriculture may doole béykat yi maanaam xool nu ñuy def ba Sénégal moom boppam si wàllum dund gi mooy maanaam autosuffisance alimentaire. yàgg nañu wax ne agriculture bi maanaam euh, loolu mooy base du développement euh, dëkk mënul mënul développé wu sans pour autant passer par euh, le stade du développement agricole crise sanitaire bu ñu bu ñu traversé nii buy Covid bi ak guerre entre Ukraine ak Russie wan nañ ne ñun Sénégal te ñun du ñun rek ah dëkk yu bare la malheureusement Euh, nous sommes trop dépendants de de l'extérieur. ba njiitu gouvernement bi di jàkkaarloog euh, député yi kii di Amadou Ba nag ci tàngoon na loolu loolee lu ko waral mooy journaliste si ñoo jékki-jékki rek commencé yuuxu seen turu naataangoo bi nga xam ne mooy Pape Alé Niang te yoon tegoon ko loxo di ñaan nag gouvernement bi te di ñaan autorité yi ñu libéré seen naataangoo bi di Pape Alé Niang waaye si kaw loolee nag député yi ñoo ngi dem amal seen intervention si kamu si kanamu ministre bi di Amadou Ba. ñu wax ci leneen jëmale ci pencum ndawi réew mi tey ci suba nag assemblée nationale yëngu na bu baax bi njiital gouvernement bi di amadu Ba di amal ab déclaration politique am la taskatu xibaar yi di yuuxu ak wax naan nañu bàyyi seen naataango bi di Pape Alé Niang yenn ci ay député sax dañoo daal di feelu yooyee taskatu xibaar comme ni ngeen koy gisee ci nataal yooyu nag dañoo ñëw ngir def seenub liggéey waane nag prox ndoolu nañ ci ba waxaale li nga xamante ni moo leen naqari muy euh, seen naataango bi nga xamante nii moom la ñu teg loxo yéen ci ay député sax jógoon doon leen may loxo bu baax taskatu xibaar bi nag ñu ngi ko tëjoon ci juróom-ñeenti fan ci weeru novembre bi ñu weesu jamono bi ñuy waxe gi nag mi ngi ci benn lopitaal ndax jafe-jafe yu mu am ci wér-gi-yaramam dafa dooroon nag ab euh, grève de la faim muy ñàkk a lekk gi mu defoon ci ñaari fan ci weeru décembre bi ñu génn ñaawteef yi am ci société bi daanaka dafa dem ba bokk ci ñun ñàkku kaaraange gi nekk ci biir Sénégal yemoo ak faat bakken gi am ci marché bu mbuur ci samedi bi ñu génn dugalaat na askanu Sénégal ci tiis wu metti ana fan la ñu jëm ak lile peine de mort bi ñu bëggoon di ku rey ñu rey la daanaka dellu siwaat na bu baax ci xelu nit ñi ñu déglu reportage bi Rokhaya Pouye def ak Alioune Badara Ndiaye Sénégal di ab dëkk bu dëdmal yokkute waaye ñàkkum xëy ñàkk ak ñàkkum kaaraange doon lu sonal lool askan wi. sécurité total ñu ngi koy ñaawlu bu baax ñun waa Ouest Foire su ma yeboo sax ne waa foire bi yëpp Sud Foire noor Foire ñun ñëpp sécurité bi dafa des fii. xale jigéen ñi sax ku ci génn nii fajar bi pour dem liggéey day nekk problème dañuy jéem a wut ñoo xamante ne leen di woo pour ñu leen di accompagner. liy xew moom instant yi ñëpp jaaxle nañ ñëpp ndax euh, gis nañ insécurité bu baax a baax a baax bi nga xam te nii amul si dëkk bi instant yi nii da ngay tiit sax am problème mu génn guddi am problème mu génn fajar ñun ñi di génn fajar yi parce que dañuy jaaxle daal xam ne doy na waar daal dëgg. askan wi ñoom di joxoñ baaraamu tuuma nguur gi ci jamono ji ministre bu yor waarum biir réew mi Antoine Diome di xamle ni wàllum criminalité wàññeeku na bu baax ci atum 2022 te at bile de ay agression yu bëri ba ci faat bakkan ñu nemmeeku ko ci biir réew mi. sama gis-gis état bi euh, deful lu ko war quoi. Ouest Foire benn gendarmerie laa fi gis police amu fi benn gendarmerie mënuñu couvrir ñun ñëpp. boppam moo amul lu waa benn ñaareel bi tam xale góor yi bëgg lu yomb dañ naan amuñu liggéey amuñu liggéey kenn du toog ci béréb rek ñu jox la liggéey yaay jóg dem wuti ji. ab dëkk bu instable ay agression yu dul jeex ba ci rey ay nit. ab laaj juddu muy ndax dañu war a andiwaat lii di peine de mort. doomu aadama moom bakkan bakkan la rek parce que yàlla moom bakkan doomu aadama la gën a fonk kon nag damaa jàpp ne nag nit bu reyee dañ ko war a rey. waaw peine de mort bi moom d'accord naa côté boobu noonu loolu noonu moom dañ ko war indiwaat tegaat si ay sanctions yu doy waar parce que fi mu nekk nii dama yaakaar ne liñ ko bàyyi tamit tax na a bëri. koy teg ci dëkk bi day ñëwaat. ku rey nit ñu rey la un point Sénégal di ab dëkk boo xam ne kaaraange gi dañu koy xoolaat ay reyante ci tayeef yu dul jeex barki dem moo njaay ca boo ab waay bu yor ab fetalam bëggoon braquer ab banque faat ñetti nit ci tayeef ci lu yàggul dara benn soxna bu wuyoo ci turu kinne ñu faat ko ci anam yu ñaaw ci bërëbu liggéeyukaayam loolee doonoon ab tiis ak njàqare bu rëy bu tegu woon ci askanu Sénégal naka lañu mën a jàppee li xew ci samdi bi ñu génn ci marché bu Mbour ndax toll nañu foo xam ni dañoo janoo ak jamono yoo xam ne nit ñi dañu dakkal ab nawlante ndax itam amul lu ci lënkaloo ak jafe yi nga xamante ne askan wi moom la ñuy dund yenn saay ñu déglu sociologue bi di docteur Abdoul Khadre Sanogo ci micro Cheikh Gabi. vérité c'est vrai que ndóol gi euh, ak jafe-jafe àdduna ak yëngatu àdduna léegi. jàpp na nit ñi ba amatuñu xel amatuñu xalaat amatuñu gis-gis mais surtout li koy firndeel li ci gën a rëy man moom laay tuddee ci samay euh, réflexion ak ci samay recherche li ñuy wax crise du contact humain maanaam euh, jafe-jafe bi nga xam ne nii léegi nit daf koo am ci euh, bàyyi xel ak yëg bi mu war a yëg moroomu moroomu moroomu nitam te loolu dafay matérialiser wu ci beneen jafe-jafe bu am moom mooy Euh, aussi li ma tuddee ci nasaraan crise de l'empathie crise de l'empathie mooy dañoo am jafe-jafe ñeewantal xam nga ci wolof ñeewantal mooy nit koo xam ne nii moom pare na pour bàyyi soxla boppam pour dem dimbali moroomam pare na pour euh, tëj biiram pour jox moroomam mu lekk pare na pour bàyyi ay doomam pour dem dimbali doomu jàmbur gis nga loolu nag bu askan tolloo foofu dafa mel ni euh, da ngay gis ni am nañu jafe-jafe li waykat bi doon wax li ma yitteel mooy nga nite gis nga ñun ay nit lañu mais léegi sunu nitee di dafa dem ba fes léegi nitee bi nitee bi boobu nag li nga xam ne nii moom moo ko war a gën a ñoŋal mooy nit ki euh, jeexital bi muy am ci ne dundam lu mu importance dundu moroomam moo ko gën a am importance ndax dundu moroomam moom moo koy garantiral dundu boppam. ndóol bi daf koo daf koo gën a gën a yaatal yaatal boo xam ne nii nit ñi dem nañu sax ba suñu ñàkkee wala ñu am jafe-jafe wala munuñu cee génn ñu yaakaar ne seen moroom la. te li ma lay wax sànq ni euh, culture de l'empathie maanaam euh, am jeexital bu mucc ayib ci wàllu ñeewant li tax mu baax mooy lu la mënti dal da nga naan sama bis moo moo moo jotul danga nga naan yàlla moo ko bindul sama jë da nga naan sama wërsëg moo toll fii da nga naan noonu la ko yàlla bëggee woon mais nga am yéene ak xol bu laab ak laabiir bu bu bu sori ni nit ki ma ëppale day xëy na yàlla loolu la bind si jëwam mais yéene naa ko yàlla na ko jikk ci mbir yi Adji saax ak Sonko capitaine Touré mi nekkoon section de recherche bu Colobane jàkkaarloo na tey jii ci altine ji attekat bi di Maham Diallo bi 11h di jot mbir mi nag bi mu dooree moom moo yoroon l'enquête bi ba tax na moom sax bokk na ci ñi njëkk a déglu kii di aji Rabi saax jamono yi nag attekat bi woolu na ko ngir déglu ko capitaine Touré nag tekki woon nañu ndomba tànkam ginnaaw bi mu génnee. wax ci mbir yi ci kanamu askan wépp ci diggante aji Sarr ak Sonko avocat yi layal Ousmane sonk nag yàgg nañoo bëgg ñu woo ko ak itam képp ku ñu jàppoon ni tey jii dacee laale ci fàttali nag capitaine ture nekkoon ci euh, gendarmerie bu Colobane section de recherche moom a ginnaaw bi ñu tekkee ndomba tànkam dugal na ab recours ci cour suprême ndax li mu jàpp mooy dañoo caxat-caxatee ak ak yelleefam jërë ngeen jëf ci teewlu beeg bàyyi xel gi ñoo ngi leen di jox dig daje ba ëllëg incha allah.